association électricien de Touba amal nañu liggéey bu am solo jëmale ko ci social jaare ko ci seen wàllu liggéey liggéey boobu leen ñu taamu woon ci bërëbu fajukaay yi ak bërëbu takk der yi ñoo ngi ko dooree ci poste de santé Sumpogo defaraat fa mbooleem lamp yoo xam ne yàqu woon na fa ñu yokkaat fa tamit yeneen làmp yu bees ngir gën a yokkaat leeraayu poste de santé ba liggéey bu am solo bi ñu amal si biir poste de santé Sumpuga loolu moo tax ki jiite poste de santé bi ak mbooleem ñu mu ànd amal ak sant ak gërëm jëmale ko si association bi ci liggéey bu am solo bi def bi ñu jugee foofu nag si la ñu wutali si camp sapeur pompier bu Touba amalaat fa liggéey bu am solo comme nin ko amalee si poste de santé Sumpuga ñu dindi fa mbooleem lamp yu yàqu ya fa nekkoon wante yokkalaat leen yeneen làmp yu yees tax na liggéey boobu lee association électricien de Touba amal sapeur pompier yi rafetlu ko lool ba ñu jógee foofu si la ñu si commissariat bu jannatul maxwa amalaat fa liggéey bu am solo ba tax na ki nga xam ni moom moo jiitee commissariat bu jannatul maxwa amal ak sant ak ngërëm jëmale ko si association bi si seen liggéey bu rafet bi lee étape boobu la ngi ko tëjee si poste de santé Madiana 2 ñu amal fa liggéey bu am solo comme nin ko defee fi ñu weesu woon bi ñu paree ñi nga xam ne ñoom ñoo jiiti association électricien de Touba dikkaat nañ ci liggéey bu am solo bi ñu amal. waaw tey def nañ benn tournée boo xam ne tournée bu am solo la ci ci ci ci ñun ndax euh, bi ñu jógee ñi ngi tàmbalee ci hôpitalu Mariana def nañ fa ay liggéey am solo ndax lépp loo xam ne nekkoon na fa entretien boo xam ne hôpital bi soxla woon na ko defar nañ ko lépp. ba mu yemb yaakaar naa ci kanam danañ ci ñëw ci bilan bi dañ fi jiyee koo ñu dem sapeur pompier foofu itam kasaalika moom itam lépp loo xam ne nekkoon na fa ci dépendance bu jëm ci wàllu courant tamit defar nañ lépp te fépp fuñ ci dem nag la fa dem lépp ñoo ko fay yóbbu duñ fa fekk dara dañuy jox ñun ñoo yóbbu lépp sunu matériel liggéey nañ ko war ba mu egg ñu a jàll bañ fa jiyee ko ñu demaat police defaat noonu. bu ñu fi jiyee ko daal di ñëw hôpital bi Lamine Ndiaye bii ci daara ji foofu la ñuy foofu la ñuy collecté tey ba ëllëg bi loolu weesoo nag ñuy sant mboolem membre association bi ci seen taxawaay ñoom ñëpp biñ leen wooyee ñëpp xëy si nañ ba tey kenn jógee gu fi ànd ak ñëpp ñun liggéey liggéey bi niñ ko ni nga xam ne lañ ko waxante wax nag bi biñ fi ñëwee defoon recensement yi yaakaar naa def nañ sax lu kawee seen njort ci ci li ci li ma yaakaar kon nag ñu dellu siwaat rek di wax ne électricien de Touba la ñu wax walla sax électricien de département Mbacké képp koo xam ne électricien nga te bokk goo ci association bi da nga ci bokk ndax dañoo bëgg a liggéey yàlla ci jaami yàlla yi moo tax ñu nekk ci hôpital yi sapeur pompier police te bëgg dem ci daar yi ak jàkka yi ak jumaa yi ñoom association électricien de Touba war nañ ci budget bi nga xam ne moom la ñu defee liggéey bi wante amalaak ak sant ak ngërëm mboolem koo xam ne jàppale na leen ci liggéey bu am solo bi lee euh, bilan bi bi nga xam ne moom lañ euh, def euh, toll na ci quatre cent mille francs quatre cent mille francs bokk na ci deux cent onze làmp yoo xam ni kenkaari yi ñoo ñu ko jox ñu booleeg suñu doole ñun ak li li ñi nga xam ni ay ay ay jaayantekat lan parce que kenkaari yi rek du ñoom parce que am na membre yu nekk ci biir association bi yoo xam dañ cee bokk ba pare joxe waat seen doole te bokkut ak li ñu jël ci kees gi kon tamit ñoo ñoom ñu ngi leen sant bu baax euh, fu may daanele mooy di sant euh, média bu baax a baax a baax parce que jàpp na ngeen liggéey bu baax wane ngeen ni ci dëkk bi ngeen dëkk. bi ñu paree ñoom association bi dikkaat nañ ci jafe-jafe yi nga xam ne électriciens yi nekk diggante Touba ak Mbacké ñoo ngi koy dund di sàkk ci état bu Sénégal mu jàppale leen ci wante ñëwaat ci projet yi nga xam ni moom la ñu man ah jafe-jafe yi moom dana xaw a bari lool du neex du neex lim waaye xam nga jafe-jafe ouvrier moom bi ci jiitu mooy xëy na euh, problème mu formation boobu da ciy am problème mu matériel da ciy am ay moyens. ak tamit tam léeg liggéey bi tamit mu am nu muy demee am yi mu dox yi saa mu taxaw yëpp ay jafe yoo xam ne sinti bi ah ñoo ngi ci biir nag ñoo ngi koy jànkonteeg moom ndànk-ndànk rek di ko muñ incha nga association de moom li muy xaar ci état mooy ku leen jàppale jàppale li ci li ci jiitu mooy ginnaaw bu ñu amee sur récépissé ba pare li jàppale état nag mooy mu fexe bañ defal ñu formation professionnelle ñëpp parce que loolu tamit mooy mooy moo mooy moo mooy paaka la mais loolu moo koy daas mooy tax métier mi ñaw formation professionnelle képp ko xam ne sint bi nekk nga ci biir te amagoo ñu fexe ba am kéet loolu moom loo doon loo xam ne soxla nañ ko ci état parce que état moo ko manal. ndax ñun ñëpp boo bëggoon na fayal seen formation peut-être loolu du du duñ ko atam. mais bu dee état moom am ministre bo xam ne sint sun ministre kooku la ñuy xaar ci moom mu jël ñu yóbbu ñu defal ñu formation ba li ñu bëgg a liggéey ci dëkk bi lépp ñu mën koo liggéey te duñ xaar kenn wante jëf ji rafet ji association électricien de touba amal duñ ni gulé ñing ko tamalé ci poste de santé yi nga xamné touba sa kanam mi ngi koy amal association électricien de touba jappalé len ba courant ba man fa yembu wante naka nonu lamp yi nga xamné ñong tay monté ci dëkk bu sel bi di touba ñom association électricien de touba ñoo ngi sak mbolem kilifa bu nekk ci dëkk bu sel bi ñu jappalé len ci liggéey bi ñu yéné ci dëkk bu sel bi di touba